waaw moo tax keroog Jamra ma ne ko d'accord ma ak yow sa pelente yi dafa am ñoo koy jox ñoo ko dul jox yaa ngi dégg comme da ngay ëmb lépp kuy néewal doole xanaa diine moom ba bu diine dafa daa bokk ci diine de waxal bu joxee kuy wax musiba war naa mën a jox kuy néewal doole moom pelent am na wala amul kon na dem waxtaanaat moom laa wax maam moom ma maam mataar laa wax na dem waxtaanaat ba bare bu affaire am boobu bu dee ay paa dong ñoo koy def dañ koy waxtaanaat parce que yàlla moo ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu démb seen loi boobu daa xuur l'islam dañ ko xeex si jaasi ba pare yonent bi xeex na ko ci jaasi ba pare ak ñoom Aliou léegi nag si bataille psychologique la ñuy xeexee. mais man mais man su ma dégg baa ngay wax euh, euh, Mame Matar Gueye yenn décision yi mu jël ko ne yow ko ci. non daf ko am côté bu mu ko yob ak côté boo xam ne yóbbuwu ko mais man d'après man li ma gisagum man li nga xam man gis naa ko jàngat ko. décision yi mu jëlagum yëpp ci côté diine. peut-être man mun naa ci d'accord. non lan mooy diine. mais ci ki taxaw di ngaañi diine di wax li nga xam ne maanaam tegul ci diine. booy léegi kaa ma wax la benn affaire ma wax la ko waxal ma ma Matar. lan moo tax arxuraan du xew yi. arxuraan du mus a xew yi loolu ñëpp xam nañ ko. ndax lan du xew yi. arxuraan ñun bi ñu ba léegi arxuraan lañu lañ fekk. moo man nag dama sama wax xam nga lan la. booy teggi da ngay teg. ban arxuraan nga ma bëgg a wax ne mooy xew mooy xew. non dama nii lu tax arxuraan du xew li ma la wax nii boo ko ko laajee moom xam ko déggoo ma de. ma lu tax arxuraan du xewi. parce que junj la lettre la boo xam ne kenn tembru ko ku ñëw mën nañ cee def sa tur ku gën a ñëw moo ko gën a dégg ku njëkk. arxuraan waxi borom bi la xoola nettali waxu jàmbur jarul tiitarul mun nga sol silib ñëw wax ko arxuraan du sa waxi bàyyi déggoo ma xam-xam laa lay wax de ñoom xam nañ bu baax li ma leen wax dofuñu mm-hmm. bu baax mm-hmm. man duma ma jaaxit nelawuma mm-hmm. yàlla xoolal mooy bind te yamalewuñ mais am na ñu xam ne bind na leen jox leen xel seen xel di nàcc waaw am na ñu xam ne mu jox leen seen xel seen xel di nàcc ni teen mais dafa am ñu poñe réew mi poñe borom xel yi duñu xel li dara fan nga jàpp ne Mame Matar Gueye daf ko waroon a def. ak ñan la woon jàppale nekkul moom diina lay xeexal doo ma dégg. boppam lay waxal quoi. ah moom interpersonnel ma. waaw diine kenn du ko xeexalee ni muy xeexe mais Mame Matar Gueye lépp lu muy def nekkul loo xam maanaam dafa am ay signature yoo xam te ni ay ay imaam ñoo ko koy def signé. moom mu doog ab ab kan mooy laa la laaj. kan mooy imaam maanaam ñi nga xam ñoo bokk ñoo yow xam nga lan la lu ma bëgg nga gaaree moo gën si yow xam nga non non dañuy waxtaan déglu xoola man julit laa. ah jullit la ñu. xoola su ma ñëwoon. Mhm. xoola leer na ma leera yàlla ni. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. kan mooy imam kan. mooy ki ñu ne ma ay ay imaam. waaw yaa ngi dégg imaam yooyu ñooy ñan. xoola diine booy yow mii yow mii de. yow mii xoola yow mii. yaa ma gën a placé wu pour liggéeyal diine. laaj ma lu tax. fii. mag ñi jeex mag ñi mag ñi jeexala xale yi commencé guñ kan moo jub fi ma jaar jaaragoo fa est-ce que boo fa jaaree doo ma gën a liggéey say point du gën sama bos ñoom dañoo gën nit ñi ñi jàpp ak moom ban ñaata âge différence moo dox seen diggante ma ne wuy ma yow laa ma ne ñi muy jàpp ak moom déggul ma wax la de man man xoola damay jàngale defu may émission de comme wër nii ñooñu di dof dof lu noonu ah. di dof dof lu di wax waxu dof yi ah. yaa ngi dégg man du ma ñooñu dama bëgg journaliste yi ñu ràññee man maay kan. man ku xam-xam sama émission du yàgg. mais yow li tax ma toog ñu ñu def émission man parce que loolu parce que njariñ ba xoola fii xoola fii lii nii xoola bi. Ah. demal xool ko si émission yu bëri xàmmee nañ ko. Mm-hmm. ku fi ñëw ni yow lay def day toog di seetaan télé. man maay télé xam nga loolu. yaa ngi dégg parce que yéen da ngeen di seetaan émission mais doo leen déglu émission déggoo ma ne dégg bi ngay dégg nii moo tax mun naa la bàyyi fii ba ngoon doo fi jóge fi ba ngoon doo fi jóge man du ma ñooñu noonu yaa ngi dégg ñooñu di def ay kii may wax mu naan diw ak diw ñëw nañ jënd carte ay balla puy di ñëw jënd carte waxal kooku mu ñëw mu ne la waxu dof laay def mu ne kooku dafa jënd carte ak keneen ki nga xam ni sawaay ndax boo ko tegoon profil diine profil la ba pare avant tout léegi profil boobu est-ce que bëgg na doomam mel noonu mu naan jënd ñëw nañ sax ñoom ñaar jënd si carte ma jotee seen carte dama koy xotti <laughs> non déedéet xoola fii ngaaka new fi parce <laughs> Seexu Tijaan yi yaa ngi dégg dam lay wax rek barki bàyyi ñus dam lay wax benn affaire xoola dama ni mm-hmm. kii bu kële bi mu bi mu nee nàmp cus mm-hmm. si la pelante bi waroon jóg mais waroo jot ba mu simmi tubay mm-hmm. di roof geen naan nañ sol kàppoot xoola ma dex jox la benn erreur pour ñu bañ gudd bi ñu taalee drapeau góor jigéen yi dañoo libéré góor jigéen ñi góor jigéen image yi lañ jël yóbbu ko si ambassade yi ñu may leen kii ñu dem noonu la ñuy xeexalee diine nii nañ dem toog bu ñu fontoo yi nga diine yonent bi yàlla dafa ko woo mu ñëw mu ne ko yow yaay mujj si yonent yi mu ne ko mu ne ko mais dama lay yónni yónni sa xeet yi yow yónnant nga man yónnant laa yaa ngi dégg gis-gisu diine du gis-gisu benn nit ak ay association mais ñun nag mënoo dëkk ak góor góor jigéen fii fii Sénégal de. xoola xaaral tuuti ma wax la ñun du ñu xoola déglul ma wax la diine dafa am xeexam système tactique paa bii boo ma joxoon xoola góor jigéen nee nga munoo dëkk ak moom kaay ma wax lay góor façon góor jigéen yi am na ñuy sol garam bu am na ñuy sol costume ñii wi taxu ñoo ci gën a ndaw te yow ñii wi taxu nga xam waaye ñun xàmmee nañ góor jigéen yi hmm. dofuñ de te ñenn ñuy wax fii dofu ñu jinna katu leen dañuy dof doflu ba pare léeg-léeg ñenn ñu dañ lay niital nekk ci ginnaaw si la ñuy wutee xaalis hmm. yéen comprendre leen de gis nga ñii yuuxu sàcc yi billaay sàcc yaa ngoog ñii yuuxu góor jigéen billaay góor jigéen ñaa man léeg-léeg damay gis nit sax ma ne mais kii xanaa xàmmee wuñ ko xool leen kii xool leen kii kooku nekk si ginnaaw di puus gars yi doomu raam baa ngi noonu. l'apparence est souvent trop di nelaw sénégalais dañuy nelaw ma wax la benn affaire. ma pour mu gën a leer sa bopp li xam naa leeru la mais bu xëy na boo ko tegee comme waxu dof laay wax. xëy non xaara xaara xaara xëy na dof bu mel ne man bu ko déggee dina comprendre làmb ji bu feesee dell fayul benn mbër de du noonu mais xaalis bi ñuy jox mbëri fan lay jóge pour sa xel dama ko natt foofu pour sa non non booy bi waaw fan lay jóge bu feesee dell fayul benn mbër bi dama la wax ni sénégalais yi nañ yeewu nañ yeewu xam nga ki takkoon sa bëtu papa muy dox mhm. dafa takk sa bët nga dindi takk bi moo tax yaag sa papa doo leen juboo paa bu ci moytuwul yaag sa njaboot da ngeen di réeroo parce que booy ñi takkoon bëtu paa yi munuñoo takk bëtu booy mhm. moo tax moo tax gisoo sa papa da daan bëgguma ay bëgguma ay fekk na yow yow li ngay def nii yëpp pour moom violence la ko jàppee xoola yàlla moo ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu demb boo yeewoon la yor jox ko portable du composé boo ko jëndalee crédit da koy sànni de. <laughs> du comprendre sax. yaa ngi dégg booy xamal fi may waxee. <laughs> jëboon